Ousmane Sonko dara dalu ko. wax dëgg yàlla mais yow mais yow. soo seetoon soo seetoon soo seetee même image bi bouteille bi amul lenn lu nga xam ne mi ngi tox jamono ji soo demee nga seetlu ba si biir mi ngi tëdd am ay. ñi xam ne ñoo koy daal. <laughs> daal euh, day gis déjà ñoom kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati muy la coalition. au euh, pouvoir kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati a calmer. muy waa Benno Bokk Yaakaar ñooy taxaw aussi di wax euh, que ni dañuy def dañuy faire yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati est-ce que finalement mënuñu tiit. waaw mais moo tax mu ne la waa Benno Bokk Yaakaar ñoo war a ak retenue. déet Benno Bokk Yaakaar discours euh, amul benn discours bu nga xam ne yëkkati neen ko def duñu nangu duñu nangu émission bi dafa bennoo bokk yaakaar ah. bennoo bokk yaakaar mm. dégg ngeen seen communiqué mm. amul fenn fu nga xam ne wax neen ak dënn deet mm. loolu amul waa léegi bu ñu wax euh, loolu foofu nga xam ne bennoo bokk yaakaar wax neen ko loolu moo si d'accord Souleymane Souleymane on euh, <laughs> aussi dañu mën a def une émission non xaaral rek xaaral rek non il faut mu wax ko pare mais aussi du ma nangu du ma ah. wax si Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. waxul waaw léegi léegi may moom ma expliqué la aussi émission bi ni muy tëddee mooy moom day wax chroniqueur la yow dañ la invité. moom bu waxee ba pare non non bu dee arrangé wu la bu dee arrangé wu la bëgg euh, koy jàngee Souleymane bul bul ci yoon nañ ko jaar ci yoon rek bàyyi ko mu développé voilà soo ko dama dégg léegi mu ne. Hmm. Euh, peuple yëpp dafa vomir Ousmane hmm. mais kon ñu koy topp noonu xanaa ay jinne lañu. Hmm. man dinaa la jox exemple man xanaa ñu may topp ay jinne leen. Eh. ñëw président bi. Macky Sall à Sédhiou. ñëpp gis neen mobilisation exceptionnelle bu fa am kan moo ko def sol ay casquette sol ay ay t-shirt loolu leer na ñooñu ay jinne la ah, ñooñu mais xam nañ ñu ñëwee man maa ngi koy wax fii télévision ñooñu ñu ngi may déglu hmm. man Souleymane Ndiaye hmm. amul benn militant bu nga xam ne mu naa ko mobiliser ma jox la cent franc fekkee ne loolu am na ñu ngi may déglu ñoom ñëpp neen génn sama parti hmm. mosul am waaw dañ ñu topp par conviction waaw liggéey ak ñun bu leen voilà mu leer léegi léegi xam nga encore une fois yéen waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo war a temporiser. Mhm. parce que dañuy wax ne euh, borom caxtu xay ak borom baatu neen opposition bi seen rôle c'est quoi rôle opposition bi c'est mais c'est de manifester. rôle opposition nekkul euh, tëju sa biir néeg di wax ne non je ne suis pas d' accord. dans la légalité bien sûr. c' comme si aujourd'hui nga ne diw syndicaliste la mais syndicaliste boobu du manifester syndicaliste bu du amul droit def marche bu amul droit def euh, protester bu amul droit def ay communique di euh, di revendiquer. Hmm. tuddatul syndicaliste kooku neneen nga ko mën a tuddee mais du syndicaliste opposition aussi un opposant bu fekkee ne. li nguur gi wax rek nga ne gongo dangay ngay tàccu ne yow li yaa ngi fi kon jarul ngay opposé yow kay da ngay ragé ginnaaw nguur gi tu te poses parce que da am yaa jàpp moom nu muy doxee peut-être nu muy doxalee di noonu. Mm-hmm. te je crois que bu ñu nekkee si démocratie war nañu nangu aussi que opposition am yenn discours am yenn comportement. Mm-hmm. mais kenn waxul ne nag opposition na taal. gis man euh, y a une chose. Mm-hmm. Euh, nguur bi fi mas nekk yëpp de Senghor à Abdoulaye à Macky Sall ku nekk xam nga ne Senghor daawul na jëflante ak en tout cas daawoon na am confrontation moom ak ay. ay ay opposant même dans son propre camp pour donner le cas de Mamadou Dia. Abdou Diouf loolu kenn waxatu ko moo si moo ko euh, Ablaye Wade moom raag bi tous les jours presque chaque chaque six mois y avait toujours euh, des problèmes euh, euh Sall ñëw mais lu ñuy dund ni l' lu ñuy constaté ni si opposition période bi yaakaar moom am ne am na opposant sous le régime de Diouf wala de Senghor wala de Abdoulaye Wade kuy dund lu mel nii. quand ay arrestation yu bëree nii. mel ni moom moo tax booyee sax ne léegi dëkk bi comme Lido boo génn rek ñu jàpp la jàpp def def bëri finalement dañoo jàpp jàpp dañu toll moo xam ne sax euh, placé su nu mu tuddati sax. sous mandat de dépôt sous dafa xew léegi élèves yu ndaw yi sax léegi boo leen laajee mu ne su luy mandat de dépôt dañ ko xam léegi def ko. déet déet déet loolu yow yaa a wax. placé placé placé sous contrôle judiciaire. d'accord encore woy boo xam ne booyu yu ndaw yi sax dañ koy woy léegi. déedéet kenn woyul mais loolu quand même. kenn woyu ko mais il faut s'interroger bëgg a woyloo boy <laughs> mais kenn woyu ko boy kay ñu ngi koy woy léegi école yi boo demee ne contrôle judiciaire hmm. mandat de dépôt si yow laa ko déggee mais Souleymane dafa am loo xam ne dañ ko dégg muy Benno Bokk Yaakaar ñu ne dañuy faire face dégg nañ ko même avant euh, démb ñu déggaat leen mais gars yi li ñuy wax mooy souvent dañu leen di dégg rek ñu xupp nii wax wax mais bu fekkente ne dem sur le terrain jot na duñ leen dégg est-ce que du un discours boo xam ne day attiser le feu mais ñi koy attiser ñëpp daanaka duñ génn même euh, dem sur le terrain man de xaw ma kan mais man Souleymane lépp lu ma wax dama koy def hmm. man xaw ma kan mais lépp lu ma wax dama koy def un deuxièmement hmm. Benno Bokk Yaakaar ñoom duñ parti bu nga xam ne wala coalition de parti bu nga xam ne day attiser le feu loolu hmm. amul sens ça n'a pas de sens amul sens jàmm ku jiite Benno Bokk Yaakaar mooy kan son excellence le président de la République Macky Sall ñëpp xam nañ ko si dal ñëpp xam nañ ko si jàmm te si loolu lay woo ñëpp waaye nag réew mi aussi du ñu nangu ku nga xam ne yow sa intérêt personnel rek yow moo la tax a jóg sa bëgg-bëgg personnel say désir personnel loolu rek moo la tax a jóg nga bëgg ne yow réew mi tooñ euh, tooñ naa nit woonaa wooneen la indil preuve nga ne noono réew mi tey kenn du fi doxe kenn du fi gi loolu moo munul am hmm. moomul réew mi réew mi nag wax dëgg yàlla kuñ ko dénk muy son excellence le président de la république Macky Sall état bi dafa war a assurer la sécurité des personnes et des biens mm-hmm. te je profite de l'occasion ñu féliciter nos forces de défence et de sécurité nga xam ne vraiment seen professionnalisme ñëpp gis nañ ko amaana fekkoon ne duñ amuñ une euh, euh, des forces de défense et de sécurité républicaines yu nga xam ne c'est des professionnels amaana dina demee neneen tiitoo ci ëllëgu réew mi fi mu nekk nii par rapport ak li ñuy gis. man tiituma si ëllëgu réew mi réew mi. Hmm. mi ngi si loxo yu wóor muy loxo président la république Macky Sall. yàlla moo ko ko dénk gis nga nguur doo toog rek ne man damay doon njiitum réew c'est pas ça réew njiitum réew ak yooyu loolu yàlla moo koy dogal si doomu aadama d'abord sénégalais yi fal ko ñu fal ko si anam bu leer ñu fal ko si anam bu leer bu leer nañ wax dëgg yàlla donc kooku k mel noonu. ñun lu ñu def mooy lan ñaanal ko sax mu amaat beneen mandat bu nga xam ne Sénégal fu mu toll nii ñu yóbbu ko feneen fu gën a kawe